waaw dama bëggoon a ñëw juste ci série Madior ak Thior bi indi ci sama contribution bu ndaw wax dëgg yàlla pidi Pikini production ñu nuulee ni ñoom mosuma ko gis non franchement pour franchement Pikine production moo gën a nuul xam nga lu tax ma ne ñoo gën a nuul Madior ak Thior départu gaynde arrivé muus seen bande d'annonce ñépp doon ko savouré neex wax dëgg yàlla ñëpp am ci yaakaar ngeen ñëw commencé film bi mu neex ba dee ñëpp am ci yaakaar ngeen arrivé arrivé muus parce que man comprendre tuma dara ci film bi te li may jooy la ñeneen ak keneen ak keneen ci jooy moo tax ah, ma ma am ci sax ji ci wax nii lan moo tax Naar Diop à chaque fois et réussi à sa fin moom dong man mosumaa gis série boo xamante ni nit ki lu mu def rekk réussir lu mu def réussir lu mu def réussir mel na ñeneen ñi ñoom yàlla nekkalu leen fi na leen xoolaan mbir yi ah, ba pare kër gi ngeen nar koo def léegi que euh, benn kër kese amatul beneen beneen beneen kër yaayi joor rey ngeen ko. Ah, ci film bi wax dëgg yàlla éliminé ngeen ko ci film bi loo xamante ne warul woon a mën a nekk ah, ngeen jël joor dofloo ko ñu ëlbatiku ñu koy violer fii par si par la non man comprendre tuma franchement parler nii ngeen fi defoon ci dikkoon may leen ñu ay cent et quelques épisodes yoo xamante ne amatul benn njariñ ndey fili lu mu def réussir ndey fili lu mu def réussir ñu foog ni bu jeexee sax jigéen ñu indil lu bees ah ngeen indil ñu joor pare pare nag tekki naar jóob lu mu def di réussir lu mu def di mais à yéene nag xoolal leen bu baax li ngeen di ak li ngeen di tegal nit ñi bu ko defee nit ñi di ci jël njariñ man daal série bëgg naa ci bu mel ni Mœurs waaw kay brigade des Mœurs ak maîtresse de noom marié ak seen papa Golden waaw kay Marodi TV daal moom chapeau mais waa Pikine production moo gën a nul soo leen mënul da ngeen ne bàyyi ñeneen ñi def wax dëgg yàlla mais film boo xamante ni yow ah yow pa kii nga xam ne même nit ki boo bokkeen moom nday at baay muy def loo xamante ni du dëgg du yoon mais yow bu fekkee da ko mat kilifa nee ko carrément ne ko li ngay def xam naa lii war naa nga ma sa boo ko deful dinaa la kalaame mais di protéger même yow sa raq moo gën ñeneen raq yi ah, dénkaane yaayal papa ba ci lan. ba naar jóob lu ko neex def di ko def nit ñi yéen nga xam ko teg ci seen tànk ngay kilifa xam teg ci xam sa tànk te doo nga ne doo ko nga mais ñeneen yi kon xanaa juruñu leen yaay joor juruñu ko ah te lu lëmas ci film bi te nu war koo éclairer dafa bari déjà papay joor nee woon nan dafa dem mission mais léegi xanaa ku dem mission sax ñaata at yàlla ji nga war a ñibbisi ah yaay joor nee naan seex la waa léegi loolu fan lañ fan lay loolu yëpp fan lay war a trouver wu ñu ko war a éclaircir ñëpp ngeen éliminer leen ci film bi non Pikine Production daal daal daal daal moom defoo leen fi dara dara dara dara dara dara dara série Madior ak moo gën a ci série yi ma fi gis yépp waxuma la dara mais yow sa jabar nan lay réere nga tal fi di def lay bo ele jantal joo xëy suba sax di seet sa jabar ah xëy suba takk say verre tuwaaletu naan kaan sa non yéen daal franchement benn kër kese film lëmb benn kër la ñuy wan joor ma dof benn kër kër soo leen mënul wala amoo leen matériel ngeen bàyyi te feewal seen film bi moo gën ngeen yàq passe-temps nit te doo leen fi indi lenn loo xamante ne mën na noo jariñ léegi danoo toll ci génération yoo xam xamante ne fokk ngeen yee nit ñi mais lii yeete woo leen bàyyi woo leen wasalaam. ñun ñu nekk extérieur moom franchement ñun téléfilm yi rek la ñuy amee ay passe-temps xam tamit lu xew ci sunu réew wala yooyu wax dëgg yàlla mais yii ma fi gis moom da ngeen ñu yokk tiital. da ngeen ñu yokk tiital nit ki moom Sénégal moom lu waaye def lu bon rek réussir non non fokk tamit ngeen yéen nit ñi ku def lu bon ah, ñu teg la ci sa ci yoon wala ku ko xam dénoncé la mais ñi ko xam ñépp di la protéger ngay def lu la neex ah non. ñun ñu nekk bitim réew da yéen ñuy tiital moom maajoor ak joor moom départu gaynde arrivé muus bi ñoo ngi ziar lu bëree bëri si loo nekk am jàmm bu baax a baax ma ni maajoor ak neex na trop trop wax dëgg fa yàlla série bu am sens la waaw ma nga commencé seetaan yàggut mais série bu am sens la mais joor dafa war a wér de joor dafa war a wér delluwaat si seen pour man boobu la gën a neex di waaw man li ma bëggoon wax ci filmu Madior ak joor neex na ma trop parce que dama koy suivre du ma ci su ma rawee si si télé sax damay jël sama téléphone ma seetaan ko waaye joor Dior démb ni mu wéree dafa yomb Dior démb Dior ni mu wéree dafa yomb trop dafa yomb pour man dafa yomb parce que yow danga dof nga ne ndax danga perte sa yaay nga dem ba gis koo xamante ni niroo na ak sa yaay ñun suñu xalaat mooy comme ñoom ñett lañ il faut ñu am kenn koo xamante ni dañ koy dañ koy rey pour mën a remplacer keneen ki parce que yaayu yaayu maajoor mu ngi fi gis nañ ko yaayu yaay ki nekkoon ne mooy yaay joor ci film bi nee nañ def na soog dee na kon keneen ki faw mu génn ñun nag tey suñu xalaat mooy que moom ki nga xamante ni moom lañ rayoon kooku moom moo nekkaat yaayu waa ji mooy kiy joor dawoon song ne wuy gis naa sama yaay gis naa sama yaay boobu noonu xelam mun na dellusiwaat foofu xel nangu nañ ne moom mun na dellusiwaat foofu parce que gis na visage boo xamante ni moom niroo na ko ak yaayam waaye fi mu wéree dafa yomb fi mu wéree moo yomb parce que rek gis nga gis nga sa yaay kott ko gis naa sama yaay ñu dugal la ci ci biir néeg bi nga geesu naan man tudd tudduma tudduma euh, kii Anta Diop Dior Diop laa tudd. affaire yooyu noonu loolu dafa yomb wér bi dafa yomb ñun liñ ci séntu woon mooy mooy joor nekk ak maire bi ci biir kër gi su nekkee maire bi ci biir kër gi di xalaat nag di xalaat su xoolee maire bi xalaat lenn ci ci lu doon defak yaayam heure bu toogee maire bi xalaat lenn ci lu mu doon def yaayam ba xel mi ñëw ba xel mi dellusiwaat mais jékki-jékki rek dof ba mu neex na nga wér si saasi loolu dafay dafa yomb daal dafa yomb pour man te épisode bi passé wax dëgg yàlla dama dama ci choqué wu dama ci choqué bu baax sax moo tax dugg ma envoyé woon naa sax message mais après dama ko supprimer mais épisode bi bii nii bu dernier bi euh, épisode 41 bii moom hmm, kontaan naa ci épisode 41 bi moom neex naa macha allah ay waay joor gis na gis na gis na tàntaam ndeysaan seexu yaay ji gis na ko ah léegi dafay wér ci ma gis-gis man gis naa ne joor nagam gis na mère bi day wér parce que dafa wax ni kooku mooy yaayam Mariama léegi moom ndax commencé na dèjà wax bu góor bi ni ko man tudduma Mariama joor laa tudd léegi ji xam ne gis na yaayam léegi Mariama aywa léegi nag xëy na ndax bu tuddee turu yaay ji nag tante ji dana xam ni sërëm la aywa. kontaan naa daal si côté boobu kontaan naa ci trop kontaan naa ci mais man paa bii moom paa bii doy na waar mais man xam naa naat jóg moom naat jóg moom man nit ku mel ne moom yaakaaruma ne am na sax soxor am na de mais ku mel ne naat jóg amul naat jóg moom yaakaaruma ne am na ku mel ne moom si monde bi amul amul yaakaaruma yaakaaruma ne am na nit ku bone nii soxore nii di di def lu bon rek di soxor lu bon di def lu bon rek di soxore nit nii vraiment amul te waa ji violé Dior ku ma waxoon ne ma kenn du ko jàpp du ko gëm yaakaaroon naa foofu balaa mu koy violé war ko woon violé viol bi moom mënoon na bañ am Dior moom waroon na waaj dem ba di ko bëgg violé am lu ko dal wala ñu bett ko mais waru ko woon violé comme ni mu waxee ne violé nag waru ko woon violé violé bi moom na ma trop mais Dior wax dëgg yàlla kenn waru ko woon violé woon wax dëgg yàlla maa Dior waroon na kat ñëw takk ka fekke nu mu ko war a fekke ni mu ko takki mais waaj yi ko violé moom franchement war ko woon violé wallaahi war ko woon wallaahi naqati na ma côté boobu moom daf ma metti trop viol bi metti na ma waaye naar jóob moom mii soxor na man sama xol dafa tàng trop ci naar jóob soxor sama xol tàng na ci waa Birahim sama xol tàng na ci moom waaw yaama sama xol tàng na ci moom mais yàlla baax na incha allah yàlla baax na yaama moom ma ngi wax ma ngi ma ngi rek na tamit yore waaw nekk leen ci jàmm lu bare bare man film bi moom épisode bi moom ma ci sore noonu yëpp parce que daal sama soog soog bu ma am ci épisode quarante bi ba léegi moom jàpp mais yàlla baax na toutes le façons ñi ñi mel na naar jóg ñu ngi koy seetaan wala ñi xaw mel na moom xam naa mel na moom amul mais ñu xaw mel na moom nañ jëm soppeeku ndax ñii dañuy yeete rek li ñuy wax nekkul ci ñoom donc duñuy duñuy yee ni ñi pour ñu mel na ñoom mën a xam lii baaxul ku ci mel na naar jóg daal moom bay boo nga jéem a changé xam ne lii du àddina ku ci mel na Pa Birahim na nga jéem a changé xam ne adduna bi léegi nit yi dafeete ñu noonu di nëppa nëppal ay danger c'est pas normal loo xam ni baaxul ñu koy nëppa nëppal loolu du dëgg du yoon waaw kanta maajoor lu mu lu mu def yeex na nga def dem police yeex na nga def bu ko defoon bu yàgg ba léegi amaana sax joor feeñ mais yàlla baax na incha allah te su dee façon képp ku fi nekk mel na naar Diop na nga jéem a soppeeku ku ci mel na yaama na nga jéem a soppeeku ku ci mel ne Pape Birahim na nga jéem a soppeeku yàlla nag baax na ñëpp ñu ko mel ni xëy na yàlla mën na leen soppi nit moom boo nekkee ci safaan dañ lay ñaanal yàlla yal na la yàlla xëy di soppi la rek moo gën mais franchement jikko yooyu moom baaxul baaxul.